إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu sant sunu borom subhanahu wa taala noonu koy baax di ko kañ ci mboolem tur yu sell ak melokaan yu kaw yi nga xam ne sunu borom rek mooy ci ko jagoo ñu ngi gërëm sunu borom yi mu defal ay tawfiq ba ñu dellu si waat ci doon keppaaru xam-xam di waxtaane saxaaba yeneen ci bi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi woowale góor ak woowale jigéen nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf leen xaj ci lu benn yoon ci alquran rijaalun laa tulhihim tijaaratu wala bay'un an dikrillah wa iqaamu salaa wa itaa zakaa yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alquluub wal absaar mbokk yi xam ngeen ni ñooñu dañuy waxtaane seen lu am solo la rawatina ci jamono bi ñu toll nga xam ne jamono bu yàqu la wala jamono bu nit ñi ci nekk yàqu lool maanaam nit ñi ñàkk ay delluwaay kon dañu na fi xasuhum la ibra toog di waxtaanee ñooñu kat ak fàttaliku ma nga ca ak ragal yàlla ma nga ca waaye ak dana góorgóorluwaat ci nit da cay nekk kon comme ni ngeen ko xamee ñuy fàttali waat ko di leen fàttali xadis ak yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni jotaay yu mel nii jotaay yi am solo la bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni aw nit duñu daje ci ab néeg ci néegu yàlla yi ay nit lañ ci ñu ngi daje ci néegu suñu borom bi di jàng lenn ci seen diine alquran di ko jàng ko jàngale ak yu ni mel di waxtaane seen mbiru diine lu dul yàlla subhanahu wa taala dafay wàcc ci ñoom ak dal malaaka yërmande yi ciin leen borom bi subhanahu wa taala di leen baax koo te ne fa moom loolu day lu lu neex la ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla yàlla defal ko ci jotaay yi ñuy am fii kon ñu ngi nekkoon ci saxaabi bu mag boobu di Saad ibn Abi Waqqas xam ngeen ni dindi bee weesu gisoon ngeen liñ jotoon a am ci dundu Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa ardaa samba tey bi mu ngi tàmbalee ci fathul baytil ak fathul fathul baytil abyad fathul baytil abyad xam ngeen ni mbokk yi saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma leen koy junjee kenn ku ci nekk dafa am ay jaboot lépp ñu ne ci branche xam-xam sax da ngay fekk saxaaba yi dafa am ay jaboot am na saxaaba yoo xam ne dañoo màcc lool ci alquran ñu leen tudd alquran ubay gis ka gis xam-xamu fiq lool ak miiraat Zayd ak Ali dal dal gis ka ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu dikkee ci wàllu jàmbaar yi su mel ni ñoom Xaalid su mel ni ñoom Kaab la ñu waxaat ñu ñuy waxtaanee kon kenn ku ci nekk yàlla laa defal ci ay jàngoor loo xam ni kéemaan la kon tey ci biir Kaab la ñu waxaat ñuy waxtaanee parce que baytil am yoon al baytil am yoon ci jamono bi ñu xool mën nañ ko tuddee maison blanche dafa naa mooy ba xam nga ne maison blanche su ne Amérique le président bi comme dëkk maison blanche la tudd turandoom rek ñu yëg ni kay turandoom ci tra moo ko moom maanaam loolu foofu ñu ko def maison blanche bii ngay jël américain yi tuddee wuñ ko maison blanche carrière ba déedéet kay ci xam yëpp génne woon na ci làmbam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Kisra fa mu dëkkoon nga xam ni ñi jii mel na la mel puissance bi jii yore moom la yore woon caay caay bi ñii yore ñoom lañ yore woon aka waa kaw bi bal hum xawmu baaxuun bal hum xawmu baaxuun kon maison blanche mooy albaytul abyad nga xam ni bala Kisra dëkkoon ba Kisra dee puissance am daanu bii daal di ñëw du ma wax sax nag dañuy ñaan puissance bi daal waaye dañ naan dana daanu insha allah loolu day am te bu ñuy ñaan na gaaw kay lu ñuy ñaan rek ak yeneen waaye ndax dana am mu mënut na ñaan parce que day am insha allah ndax loolu yenn ci wax na sallallahu alayhi wa sallam jullit jaabir ibni samra radiallahu anhu mu ni qaala rasulullahi sal allahu alehi wa sallam usbatun min ummati yaftaxuuna albayt al abyad may isra rawahu muslim wa ahmad yéen yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam am mbooloo ci yéen saxaaba yi ñoo nar a ubbi baytul abyad mu ngi leen a mos muy kër Kisra fa Kisra dëkk xarit boobu Ahmad génn ko ci musnad muslim génn ko ci saxiix wa kadalika riwaaya muslim bu jaabir ibn samura ba léegi mu ñu la taftaxunna la taftaxunna wasaabatun min ummati wala taftaxanna wasaabatun min ummati kanza aali Kisra alladi fi lbayt al abyad koom mu bari li nga xam ne moo nekk ca biir maison blanche te Kisra moom ko am mbooloo ci yéen ñoo ko def xam ngeen ni bu dikkee ci asamail muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu ñuy tuddee al axbaaru xaybiya mooy mbir yi nga xam ne yu faatu la yu faate woon te fekkee wuñ ko mooy yéen Moussa ñaar ay taat Hóod Faal yooyu faate yéen bi di ko ñu abaa ko am na yoo xam ne yetteegul mooy axbaar yi mu doon nettali ci liy xew ci mujjub jamono lii bokk ndax yéen bi lii fekkewu ko waaye xam ngeen ni ci jamono fekk ni ci salaama la fa ah yéen bi doon bind ci moom ay leetar boo demee ci ahlu siya ñu lay wax leetar yéen ci yàlla doon bindee bindante sallallahu alayhi wa sallam am na leetar boo xam ne ko bind mu xaw day mën ko bind Kisra day mën ko bind Najashi léegi mu tudd Hiraq la muy buur yi puissance yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon maanaam ñu leen di mën a gàmgam la l'islam alxaafis ibnu kathir boo delloo ci téeréen bu mag bu albidaaya wa nihaaya dafay nit ne mu ni sax nañu wax xaat bu ñu jógee ci xaadisiya daal di ubbi dëkk bu ñuy wax nahar siin nee na bi mu demee ci nahar siin di ko ubbi dafa fekk ñooñu ñoom préparé nañ ko ba xam ne saalu mi ngi ñëw ñu daal di buuf seen i jabar seen i dëbb dëbb dëbb seen i kaaka ak seen i yére daw jéggi jéggi ñoom fekk Kisra ndax comme puissance la boo xam ni ñoom li mu mënoon a gëm mooy jullit ñi mënuñu leen a gañ kon ñii dàq nañ moo tax saa bu dafa dugg ci dëkk bi naan siin fekk fa dara fekk na gars yi moom buuf nañ seen i kaaka ak seen i dëbb daw nañ ña nga daw laax ci Kisra bi ñu dàq ko ci Kisra léegi nag mu def nag saa bi ibn abi waqaas war na fekk Kisra fa mu nekk xaaral ma di xaaral mbokk yi xoolal puissance yi ñu ñu amee woon doole ñu ñu réyee woon seen soldat yi ñu mel ñu ñu amee ay moyens am ay matériel am ay jumtukaay waaye nag saytaan jullit moom bu xalaat loolu kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi idnillah ak bari ak mbooloo ak mbooloo bu tuut soo xam ne ay jullit lañ fekk mbooloo bu xal soo xam ne ay yéefar lañ ñu gañe leen waaye man ko rabba bi bismillah yàlla wàcc ñu mbëla soo demee ca Badar defal na leen ko waxal defal na leen ko yàlla may leen taw gëm ne bu nga gis wooru fas bu gëm bu ñu gis ko war ko fas jëm dafa ba di jege ko nelaw ba jeex kooku xelam dal la is yu xasiikum naasa amana war kaw fas bi da jeex su yaa ngi jëm xale sa xel dal la kon nag am na koo xamante ni borom soo taram la wàcc li dara wa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi al muminin wa alzamahu kalimata taqwa wa taqwa haqqan kon borom bi moo leen dugal ndimbal su ko defee ginnaaw ñaari weer après xaalisiya saab nabi waxaat Omar bin Xattaab daal di koy bind di ko nag léegi nag dellu demal Madaari Omar boo ko xoolal demal Omar bin Xattaab la demal Madaari Madaari mooy ba nga xamante ni fa la nguur ak Kisra nekkoon loolu soldat laa di waaj nag commencé di jéggi dëkk par dëkk dëkk par dëkk am na dëkk bu ñuy wax Pers am na dëkk bu ñuy wax Baabil am na dëkk bu ñuy wax Baxratiir yii yëpp ay dëkk la yoo xamante ni bu ñu romb rek daanaka la xam si caab lañ koy def boo xam ne baal xam nga dëkk yi noonu la waaj rek ñuy baal wuñ leen bu ñu romb rek dañ koy def la xam si caab boo xam ne baal parce que ñooñu dañ doon wuti dee dañ doon wuti dee la waaja waxoon wa ibaadu leynin ida janna dalaamu bihim kam aadidin taxrubu fi lxaddi ajraahu wa usdu haabin ida naada aljihaadu bihim habbu ila almawti yastadduna rihaahu wa ibaadu leynin jaam ak yàlla yu guddi yoo xam ni ida janna dalaamu bihim bu lëndëm bi yegsee kam aadidin ak bari jaam ak yàlla yoo xam ne bëccëgee da ngay ànd ak ñoom di dem ak a ñëw rek fekk su guddee yamxuhu ayrangoone fil xaddi jazaa'i ajraahu wa uslu xaabin ay jàmbaari gay lay àll lañ ida naadal jihaadu bihim xam nga rek jàmm yàlla guddi gi bu bëccëg jotee kat dañuy nekk ay gay lay àll bu jihaad wootee maanaam daal bu ñu nee kaay leen jihaad ñoom bu ñuy fagar dañuy fagar maa ngi dem géey su ma del siwaat rek baax na wa xëbbu ila al mawt yastaquna billah ko lii ma kuy ñoom ñooy saxaaba yéen saxaaba taabi'u ne loolu soldat taan bi continué saa bi ñëw ba ci géej dex bi léegi nag saa bi war a jéggi dex bi ndax diggante fi mu nekk ak fi Kisra nekk dex dox li saa bi leen ci ay nit gaal baax mu leen waxuma la nit la suufa saa bi nag wax ko keroog li mu yore ci am nit ci ay nit ci mbooloo ma ne ay gaal waxuma la benn gaal ay gaal mënu leen a yóbbu kon fàttee moom taxul ci wax ci nit ñi danañ dem fàttee danañ dem lii jàng yaatu lool lool def bi xóot lool te it nag mu tombee fan yoo xamante ni nag ñu ngi falax di falax di duba ka daal rek maanaam ndox moo xam ne leen ndoxum géej bi tànni ay ah gannax waaw loolu de moom defe naa libéré ma gën a xam bunt boobu géej bi tàmbaa loolu la ñuy wax def gi noonu la dem hakada léegi nag muskile mooy nañuy def mbokk yi boo leen saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi doo dañ di ànd ak xol bu booy ci di gën a bëgg saxaaba yi ak xol boobu booy ci gën a jënd sa bopp ak say bopp ndax farq bi am sa baax بعد bi am diggante ñun ak saxaaba yi ka بعد الخاطئ أو بعد المشرق والمغرب aw kama bayna samaa'i wal ard dañuy wax saxaaba yi lañuy daw ñoom la ñuy jéem a topp doom suñu diggante ak ñoom yaatoo nañ soree nañu maanaam ñoom rawee nañu lu ko ni asamaan suuf ñu dàndal rawee nañu lu ko ni maa bayna saabu ay fa fenk ba nekk fa sow ba nekk gaa yi tàmm ci tene léegi nag duñ dëpp rek parce que yeneen yàlla bu waxoon dinañ ko ubbi te dinañ ko ubbi te yeneen ay waxam ne sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ñuy def xam ngeen nit moom bu bu ñu téyee ne mbàyyi sax parce que mënuñu yëg ci ndox mënuñu yëg ci gaal te amul pour mën a wéy dem parce que kenn dox suñu digal li dafa naa mooy la balam yeneen yàlla Musa alayhi ñu kàmbi ko kàmbi waxal toog ay fan te dafa guddi gént gént bu yaatu gént daal ku laa soba mooy fas yi daal su ko foog ñoom ñooy nekk daal yi ko def saa daal di yeewu li mu yeewoo rek daal di woo gars yi dafa leen xutba moo tax bunt bi borom téere bi daf ko tuddee uduurun laa matila laha fi taarix uduurun laa matila lahu uduurun laa matila lahu fi taarix géej gi géej goo xamante ni taarix mën ta gis bu ne dal bi ma yeggee bi dama ne su doon màggaale téere dama naan ma sami'na bi hada fi abaina al-awwalin loolu ay alquran ma sami'na bi hada fi abaina al-awwalin mbir mu mel nii de mosuñu koo dégg suñu bàyyi nit yi xanaa ba nuroo mu mu sàmm te bokkuñu ba léegi naan daal di yeewu ñoom seen i gént bokk na suñuy gént ndax ñun dañuy wax di waxaay lu dul dëgg moo tax ñuy gént di géntaay lu dul dëgg ñoom dañuy wax di wax dëgg moo tax ñuy gént muy nekk dëgg saa bi mu yewoo mu daal di woo gaa yi xutba sant yàlla bi nu seen sa salaam mu ne yéen yéen seeni noonu de ñu ngi ci ginnaaw géej te xam ngeen ne muy ñoo xeex ak ñoom lu dul danoo dem fekk leen ñun nag bàyyi nañ suñuy alal bàyyi suñuy jabar bàyyi suñuy doom amuñu benn intérêt lu dul am njërmande yàlla xam ngeen ni xas bi dafa am solo mbokk ndax nit dina toll koo xam bu ko jaaxle dikkalee wala gox bu dugg ko wala ñàkk na dugg ko wala bit lay àddina dugg ko wala yiitu gaal dugg ko ba naa waa ñu ngëmam soo ko fàttalee mu dem moo tax bokk na ci sunna saa bu ñu demee ba taxawal xeer ñu daal di wax benn waaye mu fàtt yéen a ngi fàttaliku kam ñu wax baax keroog kaa di dafa faral ba fal koo xam ne mooy fàttalikat bu gaa yi naree yoon dafa rek moom dañ koo préparé pour loolu saa bu ñu leen ah gis ngeen ne mbir yaa ngi loolu man saadi ala inni qad azamtu ala qat'i hada al-bahr axraj ilayhi xaw ma yéen de waaye man Saad moom doog naa ni géej moom danaa ko dégg jàmm damay doxal damay naaw damay lu may def dinaa ko jokki daal loolu wax naa ne seen fa qaalu jamian allama allahu lana wa laka ala rusuli faqal boobu ko gërëm ci yàlla de ñu nit yàlla na yàlla dimbali ñu mën a dogoon ni ci yàlla comme yow booy dem ñuy dem loolu saxaaba yi waxoon yonente bi ni ko danañ la kopp ak duñ la kopp ba ba ba arwata bi masud waxee waxee yonente bi saa sallam ni ko yow lan la kenn yi nga xam ni ñii bu ci bu bu mujj ba dikkee dañuy daw bal am benn saxaaba bi daal di wax lu lu lu lu kenn mënta dégg na ñoom daal di wax lu trop daal di wax aw saa bu saa ne seen yàlla bi laa lan nga laa daal di wax laa mooy seen yàlla daal di ko wax lu ko métti man moo ee wax jama noppi ni ko yeneen ci salaam salaam bu jógi woon ci ci dem maa daama jógi na daal di ko saxaaba yi garab yeneen ci kontaan ci kàddu googu lool nga xam ne kàddu gi ñu ngi digg ci xol yi dëgg yoo xam ne liñ wax danañ ko def daal leen waxaat daal dina dajale mbooloo ñu leen bismillah léegi na ngeen waa nañ dem nañu demee nañ dem rek digg ba taxaw ci dem moom kay ñoom ñaar dana am danañ toog ci jàll mbaa sax ñu fee ñu toog ci seen toog mbaa ko war a xàllal comme xàllal ko sax waaye mu danañ dem saa bi ñu yëkkee ba ci géej gi au lieu que mu dugg seet bi dañuy léegi dama am lu ma soxla mooy dama bëgg ñenn ñu jiitu dama bëgg am ñu jiitu pour gënal ñu ay information parce que ñu jàll àndandoog mbooloo yëpp kenn te xamuñ lu fa xew loolu stratégie moo tax ñu ñu muusoon lañ amal ñu doon teg ca kanam xeetu saa yi daa waaj yi nañu ñu muusoon lan ndax liñ doon bañ mooy kaay seen leen baare leen seen wax bu ñu wax Aasim ibn Amr Taymi Aasim ibn Amr Taymi bu dëgg lu fitte bu doon man damaa naa bàyyi ba xam saaru ñun ñun koy def bu ñuy def dañoo am suñ suñu daa waaye man la ma taa bi ne dinañ dem rek bu gëm ne dinañ dem mu ne sax ñu wax ak man Aasim ibn Amr Taymi ni ko may dem am juróom benn téeméeri nit yoo xamante ni dañ koo xam ni ko mën nañ ànd ak yow kon mbooloo bari woon ndax comme jëm leen xoolal ñu doom bu juróom ñetti téeméer ñu demee ko xooli kon la ca def ñu xool ñu bari woon nañ lool loolu bi ñu àggee ñoom it ñu daal di dikk ba tegg ci géej gi rek làmbali seen xas yi ñu làmbalee xas yi xas yi ci boppam ñu doon téye gaay ko ci seen kan moo tax ma ni ma sami'na bi hada fi hada in awwalin loolu amul woon ci jamono saxaaba yi Fati daal dañuy yegg rek roo seen ñeent tànk yi teg seen biir man nit ki muy féyee yow nga ne comme ci kaw noonu la Fati doon féyee di dem. saa sa yoo xam bi ñuy féyee ñu ngi naan leen nastainu billah wa natawakkalu ala allah xasbuna allah wa nicma alwakil wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim mu ne kenn ku ci nekk booy jël booy départ la ngay wax kàddu yi mbooloo mi njëkk a def dañoo fii ba jub te ne saa bi doon fii ko ànd dañoo fii ba jub leen ndeke mboolam ci saa yëg nañ ni jullit ñaa ngi ñëw gaa yi tamit bëgg leen dogaale pour faagaagal leen affaire bi nga xam ne di génne seen pet yi bi ñu génnee seen pet yi ci kaw géej gi rek ñoom yëngu nañ ndax ñoom bala ñu jël seen gaal li leen yëngu mooy naka la fas yi di mën a téye di ñëw di laaj seen laaj laaj waa fer fekk mbooloo bi Salman al Farisi ñu ngi Salman moo doon traduire ñuy dégg gars yi ñu ngi doon wax naan ñii duñu ay ñii ay dina dégg ndax lu ñu def ba yegg foofu rek gars yi di leen fekk xam nga saxaaba yi ak saabi am ñu gars yi ak ñu sunna yan yàlla bi ne sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li ñuy nit war a jàng mooy xeet xeet bokk na ci sunna si ko war a jàng parce que la tax jamono jëf ñoom dañ koy soxla waaye rek aar moom nit ki mën na koo jëfandikoo te lu ba néew ci ngir aar la koy def da ngay gis koo xamante ni fii lay taxaw parce que waa nga fële mu daal ko bëri xam nga xaaral ñu doon fekk ñu bàyyi de seen bëgg bàyyi leen doon baax subhanallah bi la nekk ci kaw wax tey bi kii man wala xam nga dañ ci bidaay wala bidaay wala biñ nekkee ci kaw géej gii dox ñu ne dañ doon waxtaan comme nañ doon waxtaanee ci biir xam yëpp ñu sax dara xew ñoom daal lu weesu zikr bi leen sax bu doon wax ni ñu koy def su weesoo nee ñu ngi waxtaan ci kaw ndox mi comme ni ñuy waxtaanee ci biir mu ne wa innahu la yataxaddasuna asnaa ubulihim nahar ah bi ñuy jéggi kama yataxaddasuuna fi masirihim ala al ard comme ni ñuy dox rek bu ñu nekk ci kaw suuf si loolu daal di leen loo xam nga daal topp seen kaw gaa yi nag di jot di dem di jot di dem fan yaa ngi jéggi ñu ngi topp ci kaw man loolu bi ñuy dem dem nañ ba tourné dem nañ ba tourné ba jéggi ki nga xamante ni moom mooy géej ba mu jeex ci amul ci kenn koo xamante ni des na lu dul ñoom ñëpp lu dul benn waay kooku nag Salman al Farisi Talxati yéemu na yéemu lool yéemu lool li mu yéemal ci saaf nañu wax waaw sax dañu ko lii dañ leen jarul yéemu gis nga fiyeet fiyeet waa ji deful bàkkaar fiyeet ku tooñu suñu borom ci ci mbooloo ni nii mi ngi ciy ànd ah fiyeet koo xamante ni dafa jël yëpp jàmbur ànd ci mbooloo mi bu leen ci danañ àgg ci tamit ci incha allah danañ yegg ci kon kooku nag li la ci wax mooy wax xam gi mooy gis nga nit ki gis nga taxaw ci ay bàkkaar day tax mu man lu ne borom bi di ko dimbale ci lu ne bàkkaar da ngay mu lay kale gis nga bàkkaar comme ni ko suñu sëriñ bi waxee al alam bu xayib ci athaaru zunubi wal maasi ak ci téeréem bu ñuy wax addaau wa dawa ak ci yeneen i téeréem la dina xayib day wax ni bàkkaar dafay kale nit mën ngaa am ay jafe-jafe bu fekk bàkkaar mën ngaa ñaan mu ñàkk nan bu fekk bàkkaar mën ngaa yóbbu loo jeex ci def ko loolu doo ko def fekk bàkkaar mën ngaa yàpp ne fekk bàkkaar la yàq moo tax wa tuubu ila llahi jamian day def tuub jëm ci yàlla bis bu nekk sallallahu alayhi wa sallam duub téeméeri yoon ci moom nee nañ ko say bàkkaar moom ko am su dee tegam am nga ko bàkkaar far na waaw akay sa kanam kon lu war a def mbokk yi yéen yàlla bi nee na sangu jéggalu yàlla yi allahuma anta rabbi la ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma stataat أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقل إني جد يا رب أنا أمر الحمد لله بما يسمي. lii moom ko def moom say bàkkaar bu dara ni juuti jël ci suñu borom baal la li ci ëpp na ñàkk ma ko sang sang ba gis seen saa mooy sang jéggalu yàlla yi ko nit ki dafa war di tuub jamono bu nekk ndax mu koy xàll mu yegg comme jëm salman ni ko ah tey de tàggatal nañu jéeri ji jaw jéey ji comme ni ñu tàggatalee jaw ji waaye insha allah danañ génn loolu ñu daal di continuer ba dem ba génn ci yeneen wet benn waay benn saxaaba kese benn saxaaba kese moom lañ wax ni moom moo tàbbi moom moo tàbbi ci biir ndox mi benn waay bu ñuy wax garqan benn saxaaba bu ñuy wax garqan maanaam da mel ni bërëb bu doon ci géej gi la mu daanu ah gis ni mu daanu benn waay bu ñu naan alxaa xaa ibn amr moo ñu ko def yóbbaale parce que benn saxaaba di ko xool ba mu yàgg mu ne ko yow giñ naa ci yàlla ne jigéen ñi jiitu nañ ndox mi jur ku nañ yow waaw xaa ibn amr boo demee ci dundam saxaaba yi bu kéemaane la woon xaa xaa ibn amr xaa xaa ibn amr ak al aswad ibn yazid xaalid ibn al walid sax dañu wax ko ali ibn abi talib ñii ci ñi nga xamante ni ñoom dañ leen doon baax koo ci jàmbaar leen bopp xaa xaa ibn amr moo ko daal di jël li ko jëlee daal di ko yóbbaale su dul woon loolu kon dana daal di ñàkk bakkanam foofu li ñu yegsee xool ba la ñu yegg ci Kisra léegi li ñu ko def mooy mbaa kenn wadalu dara mbokk yi wallahi yàlla subhana li wax ci alxuraan mooy dëgg wala yansuranna allahu man yansur ci diggale borom bi suñu borom dana ko digal وعلى الله الذين امنوا لا يستخلفنهم في الارض وكان حقا علينا نصر المؤمنين kenn fàttewu dara da nga lu ñuy wax Maalik ibn Amir mu ne man sama këll moo wan sama këll la wan Maalik ibn Amir mu ne ah xam ne këll bi su ma ko jëlee gàcce lay doon ci man mboolu bi yëpp ci wan lu dara man Amir ki dama wan rek xalal ay loxo mu ne yàlla yàlla moo ma gàcceel ndax lii kat day wóor di kon man damaa tilim moo tax sama yëpp wax yëpp keneen wan suñ naan nañu tourné dem jëli waaw ci ginnaaw lañ ko bàyyi suñ naan nañ ko tourné jëm ci ndox naa ngay fallax di ko yóbbu ka ñuy teere subhanallah mu ko wax dëgg gannaaw mu ñaan yàlla subhanahu wa taala ndax ñuy gàccal pourquoi ngeen wadal mën nay wadal ndax suñu borom mu ñaan yàlla subhanahu wa taala jigéen ñi daal di ñu seen ko këll ba jiitu na leen fañ nekk ma ngay fallax te fan war a teere ci ëllëg bi ñu demee ci la Malick ibn Amir daal di jël li nga xam mooy ak këndam loolu ngaay daal di wàcc ci nag ci fi nga xamante ni moom mooy dëkk bi nag léegi ah gis na gars yi bi ñu defee information ah xam nga lan lañ wax dañ ni maa ngi xaatilu na illa jinn ñii buñ leen xaar ñi ay jinne lañ suñu ay ñi ay jinne lañ suñu ay ci xaraamo buubi dafa sama ci gàttam takk ba mu defee xam ko aw xelam dem xaaw leen ko de ci dara xaaru leen ne noppal ndax su fekkente ni waaye bi nga xamante ni moom li ñu gënoon a yaakaar moom ñu wutal ci moom mooy wax moom ma ngi jiiti sa ko mel ni jinne gaa yi ñii bu leen xaaral ñu dara ñu takk ci ñu bagaas naa def loolu mbooloom yëpp la gis ñi nga xamante ni moo jiite woon mbooloom ci siraal gis fees yi fees del mag yi fees del mag yi fees del borom xam-xam dañuy wax ñu doon làkk ci seen làkk ah di wax diiwaan aali maanaam diiwaan aali gis koo déggee loolu lay wax parce que amay dégguñu loolu diiwaan aali diiwaan ak tuuri ci gedd yi loolu la ñuy wax salman ne xam nga lu ñuy wax li ñuy wax mooy daw leen dina yàggo daw leen dina leen dina yàggo rek salman xam nga ci ñoom la bokk seen làkk dégg la ko salman al farisi ndax seen réew yooyu la jóge woon salman di leen fekkil baat yooyu abu usman al nahdi nee na jéggi nañ li nga xamante ni mooy def ci amul wenn fas boo xamante ni def na amul wenn fas boo xam lépp jéggi nañ ba yegg loolu nag yëpp nañu daal di jiit te nag li gën a jiital mooy dañu wax ne géej gi ndox mi moo la see jëm suuf boo daay lu gàtt gàtt gàtt gàtt ëpp na trois mètres su ndax ñu mayee woon ndax ak yàlla woon bu rëy lool lool lool boo xamante ni moo doxal seen diggante ak maison blanche fan jëm loolu rek ISRA moom génn na la gën a mën a yóbbu ISRA moom gën a bëri ISRA boo xaajoon li mu am ci ay moyens téeméeri yoon génn ba sax mënu ko yóbbaale ñu def xam nga lu ma jëm ci wax la loolu mooy wane na ci ñu ëppoon doole ci adduna bi la moom lam am boo xaajoon téeméer génn ba sax muy daw mënu ko yóbbaale loolu rek julli ñu daal di commencé dugg ci biir dëkk bi lay tànn di dugg ci biir dëkk bi tànn bi wax xaw moom ma nga toog toog bi ne rek ndeysaan di jàng alquran kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fatihin كذلك وأورثناها قوما آخرين الله أكبر من ذا سبحانه mi ngi jàng aaya di kontaan di muñ la ko doon muñ li suñu borom di wax xewabalu israil kam taraku min jannatin wa uyun lay tan daw nan ñaata lañ ci bàyyi ci ay tool ak i jardin ak yi ba ci ndox wa zuruu'in may mu dem ba pocc ba génn ba baax wa maqaamin karim ak ay dëkkuwaay yoo xam ne jàng yu rafet wa naamatin xéewal yoo xam ne kaanu fiiha faakihin dañ ci doon xéewal kadalika lii daal wa awratnaha suñu borom ñu doon loo ko xawman aaxirin yeneen nit lii la wala fi naan likul nisa sifatin la sifatin likul nisa sifatin la sifat lu war am na ku ko war a wax am na ku ko soxla gis nga boo demoon bay sànni ba sax ñu ñu boo jumaan ñu def ci di ko fa likul nisa sifatin la sifat lu war am na ku ko war a wax lii la ñu ñoom daal di koy jël kon borom xam-xam yi ku mel ne xaaral nu katir ñoom ak ñi nga xam ne ak al-Bayquni yi ku mel ne Ibn Jarir al-Tabari dañuy wax ni ubbi yi nga xamante ni ubbi nañ ko ci côté Iraq ba ci atum ñaar fukkee te loolu mi ngi toog ci jamono yi Omar ibn Khattab ñu ni Saad ibn Abi Waqqas moo ko ubbi loolu loolu loolu loolu lu rëy la man sabatun azima li Saad ndax bokk na ci puissance yi gën a rëy yi nga xamante ni ubbi nañ ko ba yegg ci atum ñaar fukkee yu amal jëlee xilaafa ba ci atum ñaar fukkee ah mu ne changé lu waxtaan ci boppam moo leen ubbi wala mu yabal ay ñoo xamante ni ay ndaw lañ doon doon kon foofu ci ci maison blanche nekkoon xam naa bu doon tey ci jamono ñoo ci Iraq kon lañ mën lañ mën a wax ci réewi Iraq yi foofu fa la diwaan Kisra nekkoon muy maison blanche kon Iraq ak li ko wër saay xeet réew yi li ko wër Azerbaïdjan ak Armenia yëpp ay réew la yoo xamante ni ay dëkk dëkkaat bi yaa am ngeen jamono boobu bokkul ak jamono bi ñu naan fii mooy Europe fii mooy Asie fii mooy lii fii mooy lalu amul woon déedéet maanaam tey lii ñu ko séddalee gënoon naa yaa jamonoy dem ba yàgg nag gars yi di ko gën a xaajaat di ko indi nag li fii ci réew mi rek am ngeen ni fii ay département ay ay ay ay ay mënta fi am leen fi am leen fii nekk na région yooyu ñu ngi koy préparé di ko doxal doxal ginnaaw bi dina doxal waaye amul woon ci jamono yooyu loolu borom xam-xam yi ñu ni loolu la ko taadal ubbee ci dëkk yi nga xamante ni ñëw woon foofu ginnaaw bi nag ci la historien waa ji mag jooju Mouhamad al Fatih xam ngeen Mouhamad al Fatih ah ak Faarix ibn Ziyaad ñii tamit ci ñu mën a ñubal lañ bokk am na benn benn xalaat bu ñu tuddee Gibraltar Gibraltar ah ñun dañ ko yàq rek loolu kii la arab la waaye ñu wax Faarix ibn Ziyaad moo ubbi ci réew yooyu ubbi koo xam ni saa yi du ko baax ñëw ci benn montagne campé fa moom lañ ko tuddee jabalu Faarix ibn Gibraltar yu bëri bëri bëri bëri da ngay wax dañuy bàyyi rek di ko français ko anglais nga dem fekk jullit ñee ko moom moom laa leen wax ci dundu Amari ñoo xam xool fatu lam ci nen lam ci buntu kër xos yii yëpp wax nañ ko xam moo gën waaye ki ko gën a gën a gën a gën a firndeel nag ah ki ko gën a firndeel nag mooy waajur Marwaan Marwaan li nga xamante ni moo daye woon te nguur ak al amawiya du ko Andalus nga xam ne moom moo sos ak dawlatul amal yooyu ci Andalus kon mbir yi ñu la demee yu bare bare bare jullit ñi duñ ko xam ak lan aan boo demee foofu ci Espagne da ngay gis ab benn jàmbukaay cathédrale yeeg kii église église boo xamante ni dañ lay wan ni lii jàkka la woon jàkka la woon jullit ñaa fa ne woon moom yaa fa lool foofu la civilisation bi ci islam jaare ba ñi nga xam ñooy noonu l'islam yi jël léegi nag gars yi nag bañ jëlee ba mbir yi nag commencé nañu nekk bàyyi comme ni ko la gun naa laa di jaaxaan rek ci la noonu l'islam yi nag gis na dugal leen jub boo xamante ni dañ ñuy jël ci seen kaw te la l'islam ñàkkee puissance bi mu amoon boobu fa nekkoon ay jàpp di def ay église subhanallah gis nga de moo tax ba tey boo ko demee ay jeexintal ay aasaar yu bari yoo xam ne jullit ñi ñoo ko moomoon dañ koy fekk foofu loolu nag li muy wane mooy yàlla moom fulla la wala yansuranna allahu man yansur da ngay nekk ci li mu bëgg mu doog lay nekk ci li nga bëgg nekkoo suñu balaa xam nga rek kon loolu Omar ibn Xattaab radiallahu anhu Omar bi ñu yéemu ci saa bi ñu doon ubbee dafa woo saa bi lañu wax baax dafa woo ci mbooloom saa bi gannaaw bi ñu wax maa di kal maa di kayba ah amr ibni maa di kayba moom la Omar ibn Xattaab woo ndax Omar yéemu na ci tawfiq bii nga xam ne yàlla defal na ko saa bi lañu wax baax bi mu wooyee laaj ko waaw loo xam ci saa bi lañu wax baax mu ne ko man day maa ngi def mutawaadiun fi xibaar yi gis nga saa foo ko fekk ci maar ma mu nekk dafa trop lu ah mu ne arabiyun fi namlati sol ka saa xaftaan man ko dañuy sol lu yëpp di puukarewu suñu kaw ah mu ne arabun fi saamuuri comme comme fàtt na so mu ne kay nekk waa mu nekk lan lay doon day nekk jàmbaar ba mel ni kay nekk waa yaatilu fil qadiya musuma gis mu àtte lu dul daa maanu wa yaqtumu bi sawiya musta si lu dul daa yemale ah wa yabudu fi sawiya day kuus ak nit ñi ak mbooloo ci li nga xamante ni moom mooy soldat bi ñu ànd nekkul ku naan dem leen mën a topp di leen xaar mu ne yaatu ko alayna aqal ummi al barra daf noo yërëm bëgg mu comme yaay muy bëggee doomam di ko yërëm ni wa yadxulu ilayna xaqana naqla zarra mu ni dafay yónnee ñun suñu ah gis nga gis nga ci xorandam yeeg ñoom seen gis nga ñoom bu ñu gisee lekk noonu ñuy maandoo kenn ku ci nekk dañ koy ànd bu ñu demee siddu ku ne jëm sa wàll mu ni sax bu dikkee du aati moom mbir ma bu doon nangay ne yow mu jël nangam ne dafa def ko déedéet bu ñu waaye day yemale ci biir ci la amee ñu xam xam doomu wax lii mooy mandarga yi jiit lii bokk na ci li tax borom subhanahu wa taala dimbali yëpp ma amal bi ñuy baax bokk na ci li mu doon dénkaane mooy taale nag wax waaw la bokk ci juróom benn ñi nga xamante ni buñ leen tànnee nañ ko tànn mu nekk ak yéen daanaka xam ngeen bokk na ci al asratul bashar ba duñ dem aw ba kat jigéen waaw xamaa mooy baax muy ñaar ah ña ca des am na am na am na am na ñu des ñaar des am na ñaar ñu jigéen nag juróom benn ñi nga xam ni ñoom lañ leen tànn juróom benn ñi nga xam ne amee ñu xam dafa waxoon ñi lañ leen tànn te gis al asratul bashar ba duñ dem mu ne nañu tànn saa bu jiite wala bu tànn saa bu jiite képp ku jiite dénk naa la saa xam ngeen sax loo wax jooju ñaari mbir benn bi mooy njàmbaar rek saa bi ñaar mooy daal di nga xool li saa bi balaa moo faa mu am laa tudd Abu Umayr ta amir mu jàmbaar pour ñu wane ni xool li mu bëgg ngir dama koo mere mu ne xool naa ko de dama koo xool ngir mbir waaye xool li mu bëgg ngir dama koo mere xool li mu bëgg ngir jàmbaar ba tey maa ngi koy aadoo وتقولي فإني لم أنزعه عن الكوفة من ضعف ولا قدر ولا قيام كل اللي تاخذ مقالك ورث اللي تاخذ مقالك وين اللي تاخذ مقالك لأن حديث ما يقول بجد من يتمسك حضرنا بقيت لول الإمام الزهري بعثمان بن عفان بلوى إمام dafa xolli rek mu dee incha allah moom lañ faral moom lañ faral di ci jiite daal mu ne bi asmaan faloo dafa xolliwaat mu riira bala saad la digg ba fi yàlla ji kon nii konko na lool seen njëkkaane seen kilifa wu dégg ñan loolu nag ci la jullit ñi daal di duggee ba nga xamante ni mooy albaytul abyad comme ni ma ko waxee ne rabbi bañ fa duggee nag lu xew allahu akbar am na kenn ci saxaaba yi bañ fa duggee ndeysaan jullit ñaa ngi kontaan ñii ngay kafakaree xam nga lu mu def moom dafa dem ba ci benn jaaw yi ci benn bopp rek sëgg ba di jox loolu yëpp nag ci sëgg ba ci nag ci la ñu di ko romb demal ko jëkkëre ñu sëgg ba rek te koo gis ci julli ñu ngi ubbee saa da doon def ko yëg ko am ful la xam nga saa da doon def dafa dem ba fa tolloo ko ISRA doon toog ñu puusal na bagage ñu puus ko mu julli ba juróom-ñetti at ñu ne loolu mooy sunna yonente bi salaatul fatih waaw bu yéen ci bu yéen ci ubbee fàttali naa ko bokk na dana defoon ci yore bi juróom-ñetti laaj muy juróom-ñetti laaj ay naafil koo xam kooku balaa ñu faa jullit ñaari jël jullit ñu ko juma koo xam ni ñaar téeméeri junni ak xanaa ba booy ko jiiti ay at yu dul jeex balaa maa gis naa dëkk sax balaa maa tànc ba kenn kenn mësu faa wax baal allahu akbar kee moom ma nga defal ngay sër rek benn saxaaba daal di ñëw fekk ñu ko wax yëpp yow li ngay jooy lan la nit boo xam ne yàlla daf moo defal taw bi du rëy firnde bu yonente bi saa sallam bi dëggal ak nu mu waa ñëw gañe nañ kisra dàq nañ ko mu dem ak jul dàq na ko ba saaga saagaagal moo fi ñawoon li ngay jooy lan la ne ko sama xel dafa dem ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama de tiitu ma ngeen delluwaat nekk ay yéefa waaye li ngay tiit mooy àddina song si ne ngeen nekk ci xëccoo ma dellu gannaaw allahu akbar yàlla amin fiq allahu akbar wala yàlla ko ñu fekk fekk mbokk yi ñu ngi xalaat loolu tey am na insaan ida mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu fa yaqulu rabbi akraman ida mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan ñun suñu natt kaay moom mooy na ngay amee naaf mooy yàlla bëgg na la tey amee na kii yàlla bëgg na la fekk déedéet mbir bi natt kaay bi loolu de yàlla suñu borom mooy loolu de biir bi mooy mbokk yi ñun ñi ñuy affaire def ci baax al imam ahmad mi ngi nettali ci musnad xadis boo xam ne yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam saa boo gisee yàlla di jot nit ci ay xéewal te man koy mooy xamal ni loolu du xéewal ci kibra la istidraaj la mooy yootaan mu jàng aay ja falam ma nasu ma dukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta ida farixu bima uutu axadnahum bagatan yàlla mu ngi leen ay bunt ba ñu def ba fàtte nag yàlla ci mbiram nag sunu borom yi axadnahum bagatan fa ida hum mublisun fa qutia daabiru lqawmi alladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin wax mbokk yi kenn ci mag sala di wax ni ida kunta fi nicmatin farcuha fa inna alzunuba tuzilu nicam wa xutha bitaacati rabi alcibaadi fa rabu alcibaadi sariicu lniqam daa boo nekk ci ay xéewal amal xéewal ci de da nga xam ne bàkkaar day yóbbu xéewal ñii de ko ñax ko lu ma koy ñagee ñu wax ko ko xaa ñax ko li taati rabbil ibadi si gën a tax yàlla ndax kat rabbul ibadi borom jaam ñi sari yoon la xam gaaw na dugal de kon ñuy nattukaay julli war na ko bàyyi xel kon mbir mi noonu la def boo ubbee laañu fitra allah fati or kuddi or pour seeti or seri jama maanaam daal dama la bëgg a wax waaye ci plaare bu doon mooy naan bu ñu ko yóbbulee jullit ñi rek tey am na ñëw kaay nga ubbi magasin ba Kisra doon di ubbi dund nga ubbi ba nga xamante ni bala Kisra doon denc ay arme subhanallah dama la bëgg a wax ni Kisra ba muy daw lim am bu fekkoon ci ni téeméer la kenn ba mënu koo yóbbaale ay yére yu rafet li ko génnee ci am naa ci kaw bu doon suñu jamono dina ay milliards yi milliards yi milliards ñuy nëkk di nëkk di nëkk di nëkk ba ñëw dalal ko Amar ibn Xattaab Amar di génne yére yi Kisra yi di ko keroog sax Amar jooy na ndax bokk na ca la ko jooy lool lii de xool di xéewal yàlla xañ ko yonente bi xañ ko Abu Bakar di ma ko jox man Amar mbaa suñu borom daf na la alagee lii loolu est ce que est ce que ñun danañ ci xalaatee noonu te li nga xam ne yàlla baaxee na la nga am ay moyens am waruwaay bu rafet am nangam yonente bi comme yonente daan war mbaam di war jidee est-ce que yaa ngi xalaat ni lii yàlla joxu ko woon sax yonente jox la yow moom li gars yi doon nag ku defit moom lu ko yàlla jox danaan dama koo yoyoo day wokk loo xam te ni maa ko yoyoo amal commencé di yëkkati yére yi foofu ne kéemaan suñu borom kenn xam ngeen kéemaan bi la amal na yëkkati yére yi ba mu yàgg mu yëkkati benn yére ci tra bu rafet bu ànd ak um taar yi rafet gudd Omar di xool kan la tolloo ci saxaaba yi ma jox ko seen suraaxa bi maa di ko kaay na suraaxa ñëw na ko mu jox ko mu ne ko dem xoxal dem mu dox dem mu ne ko dellu bi mu dem mu jox ko kaan bi ak or ba mu àndaloon ne ko lii moom daa leen di sax sama ci biir bi ko joxee suraaxa suraaxa dafa tëb dafa tëb yuuxu lan la suraaxa bi yuuxu xam ngeen bu suraaxa doon yuuxu allahu akbar wallahi fii di alamin min alaami nubuwati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sura ko dafa yuuxu mel ku takkal ko sabab da ngeen a fàtte keroog ba Abu Bakar doon dem ànd ak yonent bi ànd ak suraaxa bi leen dab yonent bi ñaan ko fas yi mëdd ay tànkam mu ne sàkk ci lu yonent bi bàyyi ko ba mu ñett yoon mu xam ne kii nugg wala àndal yonent bi ne ko boo ñibbee te téeñaloo ne Kisra lu yàgg yàgg yàgg dinañ mës a ubbi kaan ba ak yére ya muy sol buñ ko ubbee yow lañ koy may allahu akbar foofu suraama dal di yuux xam nga la wallahi laqad sadaqa xabibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bu mu koy di kañ la te gàddaay yonent bi defaat juróom-ñeenti at nga boole ko muy fukki at aw ba def ñaar muy fukk ak ñaar Omar ñëw ba ñëpp daanaka daal loo xaw a jege fukki at ak juróom mu àjjana dina ma bi dina bi alhamdulilah kon comme bi ci topp ñu koy jeexale mooy i'tidaaluhu lil fitna kon gis ngeen taam la wax ginnaaw bi nga xamante ni loolu am na Suraaqa ibn Maalik di jël la nga xamante ni loolu la ko yonent bi di ko sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen loolu lu muy ni loolu mi ngi mel ni man mu toog fii naan gis bu ñu gañee Amérique ah filiale ba kii di toog xëy buur ba xëy buur ba xëy ba ba filiale ba xaw ma xëy toog gis nga loolu lay niru maanaam day réer lool wallaay day réer bis bu ñu gañee Amérique seen ba Obama di toog yow laa koy ma tuddal ko kenn dafay réer lool wala ba ko yenn ci ñuy wax ci kon maanaam gis xam yi am foofu mooy ba ko yenn ci wax moom am na doole ndax mu xam ni doole ji dana yegg ko waaye ku ñàkk doole bay daw di làqatu di wax loolu mu ne la ne kii yàlla moo ko wax loolu li mu wax سعد بن وقاص رضي الله عنه واعتذاره للاسلام فهو am solo ni maa ngi doon jéego rek mu bañ a nekk bu mujj ci suñu xol yi ndax mbokk la ñoo nekk fitna mbokk yi wallahi ni dina baax na lool dañu naw ko dañ koy joxañ ay baara fitna ñu yàqal li gën a mën a yàqal doomu aadama si suuf diine mooy fitna mbokk yi fitna day soppi nit fitna day tax nit mel melam ak mu mel woon fitna mën naa tax nit ñàkk ay jaamu yàlla li mu amoon yow am am saaru jibaari jibaal ñaata ci ñun tey fitna ñëw leen day tax yóbbu leen te ñu nekkoon ñu jàmbaare ñu góorgóorlu woon ma taxaw di fitna la yàlla yàlla boo xam fitna ngi nelaw yàlla rëbb na ko ko ñee fitna day ñëw rek seytaane ko rek doon rëbb ci sa ndig soppi la waa li nga nekk sunna génn ci sunna maa ngi xaw xam kon bay waale kuy góorgóorlu waaye fitna moo ko dara yàqal moo tax yéen yàlla dara muslu ba ci julli ba ci adbaara salawaat yàlla musal ko ci fitna te am nañ waxaat moom yàlla daf koo defal taw fii sama musal na ci fitna yi amoon jamono saxaaba yi fitna bi mu amee ci jamonoy saxaaba yi sax xam ngeen ni jërul ma ci jaaraat ci lu yaatu ndax ku ci bëgg a delluwaay boo delloo ci dundu Asmaan ibn Affaan kooku moom yaakaaroon naa te lu yaatu jubluwaay bokkoon na ci moom nit mën a dellu bis bu ne fitna amoon na diggante Ali Muawiya Aïcha Talha ñoom te soow li pour jullit ñi rayante ci seen biir fitna jooju fitna ju naqaree nekkee la comme ni leen ko waxee woon ci biir dundu Asmaan daan moom ba mu xoolee gisut lu mu xam gis ni jullit ñi ñooy waxante ci seen biir ay kàb saadu daa buub ay dëbëg dëbëg ak i kàngam ak i njabootam jëm xañ ci jëlee kër xeew moom bokk ci xew saadu bokk na ci li mu wax mu ni wallaay gis naa ci yàlla ne man lii bokk naa ci ñi nga xam ne xam naa ne yeyoo naa xilaafa bi comme lépp wax na dëgg ndax bokk na ci asar comme basharu na bil janna ci amal ci teewul mu ni bokk naa ci ñi nga xam ne xam naa ne yeyoo naa xilaafa bi ah jihaad naa ba yonent bi dund jihaad naa ba yëpp ci kanam Abubakar jihaad naa ci kanam Omar ñoom ñëpp amu ci kenn ku ma xam ñëpp melaan gërëm nañu ah mu ni day su ma naree soobu fii di xeex te xaw ma sama jaati bi ku ma ci nar a rey xanaa yàlla wàcceel ma jaati joo xam day am ñaari nopp ak ñaari bët ak jinni te naan ma sax kii julit la bu ko rey kee yéefar la demal rey fii xaw ma jaati bi mel noonu du ma bokk ci xarit jaati du am ñaari nopp ak i bët ak génne ci naan ma kii rey ko kii bu ko rey kii rey ko kii bu ko rey Zayd ibn Hasan mu Ali ibn Zayd ibn Hasan mu ni di fitna ci takkar naatee nag ñi bëgg a mucc ci fitna ñoom xamul ñu ñu def dañ doon laaj xiyaaru saxaaba yéen ñoo gën a baax saxaaba yi waaye ku laajee dañ naan dama topp dama topp daal moo ne saxaaba ñu gën a baax saxaaba ñoo ko wax Ali moo gën a baax saxaaba waaye Ali doonte ahlu sunna wal jamaa ci comme ni leen ko waxee woon jël dundu asmaan ay julit ñoo daje woon fa Aïsa dajeeg Ali ahlu sunna wal jamaa dëppoo nañ ci ne Ali moo am dëgg te Aïsa xam na loolu Aïsa xam na loolu jooy na ko ba xëy baax ndax rëcc bu mu rëcc loolu njuum dana nag yëf yàlla nee na ci góorgóorlu farlu defe ne nii la te du noonu ba nga juum ta benn siyaaba la ngay am ci defe ne nii la góorgóorlu te far mu nekk noona ñaari siyaaba ngay am kon insha allahu loola yàlla jëkkal na leen lu muy tax am suñu jamaa kenn leen jamaa yi Muawiya fam daje woon ak Ali ahlu sunna wal jamaa dañuy wax ni bokk na ci mandarga yi wala yow bokkoo ci ahlu sunna mooy ngay ngàññi Muawiya ànd ak loolu lépp nag dañuy gëm ne Ali moo xamoon dëgg ko gis nga de Ali moo xamoon dëgg waaye mën naa bokk ci mbooloom Ali waaye déet dëgg ko de wala bokk ci fitna yëpp la asmaan dëgg ko de même ci am dëgg ci amul dëgg muy dafa dem tool amir ibn xakam mu ni jëlee nañ ci xawaana mu ni benn waay benn bi si saab dafa dikk dugg ci Muawiya xaw ma bëgg ci takkar naa ko def yéen nga naan Ali Abi Talib mooy amirul muminin am mbooloo toog fële naan moo tax gis nga mbokk yi wallaay war nañu sant yàlla war nañu sant yàlla baax fitna yi tolloon na koo xam ne ñàkk koo fekkee gi rek ñàkk koo fekkee gi rek jar na tam ci yàlla su jub suba ba ngoon gis nga fitna yii ñun ñu doye di yii buñ ko fekkee woon ak yow ñun tamit fekkee wuñ ko rek ñu ci yàqu lañu parce que kenn ci mag salek boo ko mu daan wax nekk li ma xëcc yi daan dama ko nekk yàlla tàmm taw gëm ba boo fekkee wu ko taw laa ñu di ko yàqu allahu akbar loolu moo dégg yàlla tàmm na sama jëm ba fekkeewu ko du ma tàggat ba saaw laa ngi yàqu na ñun bu ñu ko fekkee ak ni ñu doyalee ko nasallah salaamata wal afiya ndax am daal dugg ci fekk mbooloo maa ngi wër Muawiya bin Abi Sufyan ah Muawiya kilifa la dëgg waaye saa suñu kilifa la parce que garage yi kii tapp kii la kii tapp kii la ku ne xam yéen ku ne am ngay mën a amee kii di ndigaay yéen gars yi ku dikkee dugg na salaamaaleykum yaa amirul muminin saadu dugg ci ne ko salaamaaleykum yaa Muawiya bin Abi Sufyan nit ñi fii lu tax ndax kenn ñi mu ko wax loolu boobu ñu ngi def amirul muminin bi loolu amee mu ni ko mu ni ko law sikta an taqula xayra hada xayra la kult boo waxee ne dara du la ci fekk mu ni ko fa naxnu lmuminuun wala mumin ñun ñii ñun ñooy jullit ñi ñoo ñu gëm yàlla te duñ la amir de ku la fal amir moo la fa waaye man xamuma la amir mu ni ko fa innaka mucjabun bima anta fii ñi ñaa ngi lay jay rek ngay jayee waaye baax mu ni wallahi ma yasurni anni ala alladi anta alayhi ñaan ma yàlla mu nekk ci li nga nekk maa nga ma toog ci nga toog wa an yi xalaw su nekk jama dalil toog ko dee ma tuural ko mbokkum jil ñaan ma ko yàlla man sax ñu wër seen yoon waaw yéen toog na biir mu sëñ ndax dégg na dëgg ci fam ko war a dégg xam na dégg dëgg ak déggee ko fam ko war a déggee bokkul ndax lii am na keneen ko wax maa yee ci sëgg ni am na keneen ko wax saxaaba yi saxaaba yi gaa yi ñoo lay dóor waaye ki ko wax foofa la war a génne parce que abdu foofu maa yee ko baax saadu génn dañu am amir bi saadu nee na benn bi benn waaye dafa dikk di laaj saadu lan mooy position ci fitna yi mu ni ko atul fitna ci sax mënu ni soo amul lenn loo may jigéen naa dugg ci fitna yi ak akula rab sax ma nekk sa bopp mu ni ko wallaahi su ma joxoon jaati joo xam ni su ma xaaj di dóor ab julit danaa ma génn waaye bul dóor ci julit la su ma xaaj di dóor ab yéebar bu rey su ma amoon jaati di mel noonu ma leen bokk waa di bokk amaan na suñu wax ñu ngi leen bokk na dalam doon wax inna allaha yuhibbu al ghaniya al xafiya al taqi si oom lu doy loolu ko yàlla jox làqatu ca lu xam ragal yàlla te noppi moo tax fitna yi am na saxaaba yoo xam dañ ko yaati gaaloon kii kenn la def waaye bu ñu àggee ci suñu Abdoulaye ibn Omar jéem ko gis moo ne moom ci jàkka ja rek ku bëgg ñëw jël dara rek foofu mu jox ndax mu wax seen daara la woon di jàngale rek waaye topp kenn kon kii ak Abdoulaye ak ñeneen am na ñoo xam ne bokkuñ woon ci fitna yi dañoo musoor kon kii ci la bokkoon amaan na bind bi ñu bala ñuy continuer incha allah daan ci leeral ak yenn yi nga xamante ni xewoon na ci fitna yooyu ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ci taw fii wa sallallahu ala muhammad wa alihi